salaamaaleykum mbokk yi am mbégte àndaat ak yéen ci télévision Futur Média benn waxtu jot na ba te kay simili xibaaru digg bëccëg yi bokk na ci li ci gën a fës tey jile di ñaareelu bés yi boulanger yi banque seeni yoxo jamono ji ñu ngi daje sax ak ministre bi ñu dénk jënd mbéeg njaay mi di Aminata Assome Diatta ñuy waxtaan xool ci yan anam la ñuy jubboowee ngir grève boobu dakk waaye tamit wax ci jafe-jafe yi secteur bi di dundu campagne mbayum ren jile ca diwaanu Kaolack ñaar ak juróom-ñaari junni ci ay jiw yu ñu uh, nangu ñu ngi foofee ñu denc opérateur privé stockeur yi nag ne dañuy xaar dogal bàyyeekoo ci kilifa yi képp uh, ñu séddale ko ñu ne nag ñiy wër di wax naan uh, foofee jiw amu fa waxuñu lu ñu xam ca Casamance ñi jëfandikoo lii di ndaamaraas di ko béy di ko jaay bëggatuñu ñu koy jaaralee ci suuf si di ko génne ci réew mi ñu jàpp ni kilo bi ren jile dafa wàññeeku jóge ci 400 ñëw ba ci 300 francs lu ci mel ni Guinée Bissau wala Gambie foofu la seenu production di dem loolee gisuñu ci ab njëriña li ñuy duppee grippe équine sonal loolu ay euh, mbaam fas wala bokk ay lee lu toll ci ay euh, téeméer faatu nañu ci bés weesu ay vétérinaire nag ne ñuy moytandiku di boole mala yooyu lee ngir bañ feebar bi di gën a law ci anam yooyu noonu kon euh, yi mala yooyu di dund dinañ ci waxtaan ak suñu gan di Emmanuel Bouré Sarr nekk ki teewal ONG Brooke fii ci réew mi wàllum tàggat yaram ak kaan ñi amagul fukki jom ñaar ca Tanzanie gaynde yi di amal seenub ñaareelu match ci kanam tuuti lay doon ñu fas yéene jàkkaarloo ak gine mbokk yi loolee tënk la nes tuuti ñu yaatal ko. ginnaaw bañ leen waatee ba noppi boulanger yi ci Sénégal tey mooy seen ñaareelu bésu gerew ñetti fan la ñu ne démb tey ak ëllëg bokk na ci li ñuy mettitlu mooy seen i jafe yi ñuy dund saa su nekk bu mujj bi kay xanaa dafa di mooy saaku fariñ bi ñu gis ni dafa am ab yokkute te ci jamono ji ñuy wax ak yéen am na benn ndaje buy am ca ministère du commerce diggante ministre ba Aminata Assome Diatta ak mbootaay bi ëmb boulanger yi foofule ca banlieue bu ndakaaru nag askan wi bëri nañu jaaxle diggante démb tey ñu xëy mburu nemmeeku ñoom li ñu bëgg kon mooy nag ñu saafara jafe-jafe boobu buuxante sax lañ fa nemmeeku ci yenn diwaan ya ñu ne nañ def kéem kattan ba miisu mburu bu mu dépassé fanweer yi muy jar jamono jile seeni kàddu Salif Sow ak Asmalik Diop ñoo ko taataan ci na moom da xëy yor sa njaboot ñu war a jàngi duñu gis mburu mu ñu lekk duñu def dara ay beñe la ñuy jënd wala di fonde te ñoom mburu yi lañu tàmm ah ñu li ñuy def ñu def bu fekkee ne def nañ ko cent ba tey tane na waaye bu ñu ko bëggee def 200 nga yore njaboot ah boo jabootee nga war a jënd ay cinq kilo 10 yooyu xam nga day metti te lii li ciy dem an ñëwgul ñun ñun mën nañ kaa ndekkee waaye xale yi xamuñu loolu tàmmuñu ko lii affaire bi dafa yéemi vraiment en tout cas donc euh, depuis démb voilà euh, nit yi euh, amuñu pain pour ndekki donc lii vraiment daa jaaxali quoi là am instant yi maa ngi si rang yaa di moon xalaatuma sax bu dina am damay patienter rek bu ma amee ça va bi ma amul rek j'ai pas de choix donc le présent il doit revoir ça. mbuur bi laa wut suba ba tey gis nga rang toll. Hmm. doy na waa trop boulangerie bi moom jeexal daa mel ni ñi si heures du matin la ñuy yeew di wër mbuur ba tey li ñaaw na. ah dañoo grève moom gouvernement wax na def dara parce que métti na trop. man fee laa di jënd mburu boulangerie Capek. ah wóorul wóorul ndax di nga am parce que mën nañ defar ba ci digg bi ñu ne arrêté nañ. waaw wóorul ndax di nga am. ah xanaa ñu jéem a dawal yërmande rek te defaraan mburu même bu bu ñu yokkee prix mburu bi sax mu ñu jël mais quand même nañu commencé defar parce lii dafa métti ni moom daa métti. ci wàllu mbay ma ci diwaanu Kaolack lu toll ci ñaar fukki euh, junni ak juróom-ñaar ci ay tonnes euh, jiw mi ngi foofee ñu denc OPS yi di opérateur privé stockeur yi ñoo ko xamle ñu ne jamono ji dañuy xaar rek ndigal bàyyeekoo ci ministère bi ñu denk wàllu mbay mi ngir ñu mën koo séddale wër nañ nag yenn ci ay seko ngir dalal xelu baykat yi képp ku taxaw ne foofee jiw amu fa dangaa wax lu la neex loolu la ñu wax Ibrahima Diame ak Xali Ibrahima Diame ak Fally opérateur privé stockeur yi di wone seen jiw yi ne pare nañ pour mise en place bi ñu ne nguur gi rek la ñuy déglu ci wàllu notification yi. Euh, fi mu nekk nii daanaka tey bu ñu waxoon bu ñu joxoon notification yi nañu nañ yóbbu tel bërëb ak tel bërëb gerte pour yóbbu fa semence yaakaar naa ne li ci des euh, yàggatul lu dul def mise en sac yi yóbbu ga acheminé ko teg ko ci oto yi yóbbu ko fu ñu ko état wax kon donc ñu pare nañ. pare nañ comme ni ko béykat yi ni leen ko béykat yi waxee ne li ñu bëgg mooy mois de mais ñu jot seen semence ci loolu ñun pare nañ ci pour def ko. bu ñu sukkandikoo ci ñoom déjà dajale nañ lu mat ñaar fukk ak juróom-ñaari junni tonnes de semence certifiée yu nga xam ne ñu ngi seen biir magasin yi. waa département bu Kaolack daanaka li ñu boo xoolee au niveau département de Kaolack dajale nañ fi lu toll ci vingt sept mille tonnes. tey bu ngeen demoon vérifier ko au niveau de euh, DRDR danañ leen wax exactement chiffres yi ma leen wax ni moom lañ leen di annoncé. bu gis bi xam ne wedd gis bokk ci jiw bi jiw de qualité la euh, mu nekk loo xam ne luñ collecté la traité ko yéen seen bopp ngeen teg seen bopp. en tout cas bokk na ci li gën a soxal béykat yi moo di teel a jot lii di jiw yi ak engrais bi waaye tamit matériel agricole bi ndax dara bañ leen bett ci nawet bi. ñiy jaay ndamaraas ca diwaanu Casamance di ñaax kilifa yi réew mi ñu tere jaarale bi ci kon suuf si maanaam di jël produit yooyee di ko fii génne ndax dañoo jàpp ni lu ci bëri ca Gambie ak Guinée Bissau lay dem te gisuñu ca benn njëriñ campagne ren bi njëg bi dafa wàññeeku ci kilo bi daanaka juróom-ñetti fukki dërëm la jóge bàyyee ñëw ba juróom-benn fukki ci ay dërëm Boubacar Konta lañ ciy déglu moom moo jiite ab banqaas commerçant yi yëngatu ci ndamaraas foofee Bakary Konté ak Xaali Jàmme seetlu nañ di ren daal kaju bi mu ngi si diggante trois cent ba quatre cent franc moo tax dañu conseillé woon nit yi ko am cent wala quatre cent franc jaayal parce que lu ko waral mooy que kaju bi bitim réew yi nga xamante foofu lañ koy exporté moo xawa Euh, chuter donc bu chuter sûrement dafay dafay wàccewaat si ñun tamit ñu ngi ñaan nag mu gën a jógaat si kanam. kaso bi dañ ko daan yóbbu Gambie wala Guinée Bissau donc daaw bi ministre euh, Alioune Sarr l'ancien ministre du commerce jëloon ci arrêté donc taxoon na ba loolu wàññeeku te loolu dafa jox Sénégal benn position boo xamante ne amu ko woon. Sénégal presque boo xoolee au niveau des échelles mondiales mu ngi doon ay 576 tonnes moom la ñuy considéré comme Sénégal loolu la am mais ren da ngay gis ni jógee nañ 576 tonnes dem nañ ba 32 000 tonnes loolu boo ko xayma en chiffre d'affaires joxe na Casamance kese 21 milliards et plus donc loolu moo tax mesure boobu dañ koy saluer te di ñaan suñu autorités yi administratives yi fi nekk ñu veiller au respect de de de cette mesure. di leen ñax vraiment di foofu la ñuy lancer benn appel ministre bu bees bi pour que vraiment moom tamit mu accompagner mesure boobu mu mu donne instruction yi ferme à ses autorités pour que ñu tëj suñu frontières yi parce que déjà fu mel ni Kola wala Sédhiou nit yi commencé nañu jënd kasu yi di ko yóbbu Gambie te loolu chaque fois dafay delloo ñu réew mi si ginnaaw te ñun exportateurs yi bëgguñu lool commerçant yi sax bëggatuñu ñun ñëpp lu ñu bëgg mooy souveraineté nationale bi si produit bi produit bi yëpp jaar port de Ziguinchor. ay suuf ñuy nangu ca peggu pôle urbain yooyee di bu dagg xolpa ak yéen kilifa ya fa nekk ya nekk ca mairie ba askan wa maire bay futtu ginnaaw benn assemblée générale bu ñu amaloon foofule ñu ne njiitu réew mi Macky Sall ñëw xool ak i gëtam wala sax mu am ku mu fa yabal ñu xool ñoom lañuy ñuy dund foofule maam xaw Dieng lañ ciy déglu ci micro Ousseynou Thiam ak Ahmadou Bamba Samb. jóge fële ñii naan dañ ma jox 10 hectares ci yeen ñii naan dañ ma jox 60 hectares fii ñii naan dañ ma jox 10 hectares fële 15 hectares lu nekk ñu koy gis ci yeen population yeen sonn nañu waa tey bu ne bu ñu waxee ne ñaari pôle am na ci benn commune ñaari pôle muy pôlu yeen état bi ne daf koy jël muy plus de 400 hectares ñu ne pôle urbain de Daga Xolpa am na plus de 700 hectares loolu tamit ci communes yi loolu bu ko jëlee ñu ne dañuy def benn zone aménagement concerté jox ko ay nit ñoo xam ne xamuñu fu ñu jóge loolu la waaye yéen wax ne ñu ngi ñaan président de la république ñaari décret yi mu jëndoon en 2015 moo xamee ne ñoo institué ñaari pôle yooyu ñu ngi ñaan président de la république pôle yooyu mu dindi ko. lii ci diwaanu Mbour la xewe rawatina ca Joal ñu ne nag ay euh, sàmmkat euh, ñoom ñooy tuumal ministre des sports ba woon Joseph Ndong ni dafa posone seeni euh, nag lu toll ci ñeent faatu ci te nee nañ sax nag dugguleet ba tax na bile yoon dañoo dem ca yoon kalaame moom mañ cay tuumal di Joseph Ndong nag lànk na ne du ci àddu Abdourahmane Diallo ay sàmmkat yu ñu àndal ci terrain wu ki fi nekkoon jëwriñ bu jëm ci wàllum tàggat yaram di Joseph Ndong ñoom ñu ngi xam le ni seen nag yi ci bërëb boobu lañ ko posone ñeenti nag yoo xam ne dañ doon wattu tool boo xam ne ñaguñu ko defuñu ko dara dara nekku ci biir ñu def ci poson ñoo xam ne ñoo fi nekk nekk ay gardien ñu bàyyi fii benn siwa def ko ba mu fees poson ñu ñëw ñu naan ci poson tey nag yëpp ñu ngi ni dee. sàmmkat yooyu nga xam ne ci département de Mbour la ñu ne. kuréelu sàmmkatu Sénégal yi fas yéene leen jàppal tànk ñoom sax porté nañu plainte ki fi nekkoon jëwriñ ci nguur Abdoulaye Wade. porté nañu plant ñëw nañu fii inspecte kii bi xool ko def euh, kii bi nu mu tuddee constant beeg yëpp yóbbu nañ ko commandant brigade gendarmerie bi ñu ngi topp procédure bi ñu seet fan lay mujj parce que lii dafa bari ci biir càmm gi. amoon na fi Mumar Sarr mujjul fenn amoon na fi Jolof mujjul fenn bërki Dembo Njaay la am Fandeen mujjul fenn lor Sanjara am na fa mujjul fenn ñuy lor jur yi di rey jur yi ci maali pro loo xam li teguñu ko fenn. sàmmkat yooyu nag di xam xamle ni lii mooy ñetteelu yoon ñuy posone seeni ay nag ci bërëb boobu jëwriñ bi yoroon wàllu tàggat yaram di Joseph Ndong ginnaaw bi ñu ko laajtee li ni mel moom bugg ci yee yàbbi. yeneen mala yu sonn fan yi de euh, mu di ay mbaam fas wala bokk mberkeel rawatina euh, ci digg réew mi jàngoro jooje digib ékin euh, moo leen sonal am na ci ay téeméer yu faatu jàngoro jooju nag ni muy feeñee mooy lu ci mel ni ay bakken yuy siit wala bokk sëqat ci mala yooyu le vétérinaire yi ne ngir moytandiku ko faaw ñuy bañ a di boole kon fas yeeg mbaam yooyu le vaccin am na te rombul la ñu ne 8000 francs CFA docteur Fatou Touré moom moo ko xamle ci micro. Mouhamadou Lamine Ndiaye ak Diafara Ba. feebar bi dal fas yéeg mbaam yi ab virus moo ko waral. bakkan yi sotti bokk ci lu koy màndargaal. dañuy gis fas bi ci niveau bakkan bi mu am ay euh, ndox yenn xit noonu lañ koy tuddee yu ciy génn su defee quelque fan nga gis fas bi di sëqët ba pare yaram bi day tàng. ndaje bi fas yéeg mbaam yi di daje seen biir. mooy tax ñuy wàll ñi ci des. su du loolu mi ngi fépp ci Sénégal surtout région digg bi li ko jëmee Kaolack fatik ah euh, yéeg ba Koumpentoum Koungheul foofu lañ ko gën a gis mais li indi loolu mooy actuellement li ñax bi bëriwul Sénégal animaux yi dañu bëri mooy nag yi fas yi dañu bëri zone boobu donc ak marché yi luuma yi ñuy dajaloo. loolu mooy indi feebar bi gën a bari foofu. vaccin bi am na ci Sénégal yépp li ko tax a jóg aar fas yeeg mbaam yi feebaragul. amul faj à di parce que li ñuy wax virus la lu ndaw a ndaw a ndaw donc li ñu mën a def mooy su ko fas bi amee nga jege vétérinaire nga dem seeti benn vétérinaire moom mu defal la benn euh, matukaay boo xam ni dafay yokk fas bi kàttan pour fas bi mën a rëcc ak pour éviter yeneen feebar ñëw dugg si. loolu souvent mooy rey fas yi yeneen feebar yi ñëw yokku si loolu mooy rey fas bi piqûre bi normalement mi ngi jar euh, ay booru 6000 wala 8000 mooy junne ak juróom-benn téeméer sans compter que vétérinaire bi la koy defal da nga koy fay. feebar googu fas yeeg mbaam yi mënuñu ko wàll nit Kédougou ak Ziguinchor rek lañ gisagul feebar boobu boobule. ñu waxtaan ci ba léegi ak suñu gan di Emmanuel Bouré Sarr ñu ngi lay nuyu monsieur Sarr. fay ah, yow yaa teewal fii ci Sénégal euh, kon ONG boobee ñuy duppee Brooke muy euh, liggéey ngir gën a ñoŋal anam yi nga xam ne euh, ba fas ak mbaam ak mberkele ci la ñuy dundee wala lañuy ñuy liggéeyee ci réew mi dégg nga ko sànq jàngoro bi fan yi sonal na leen ndax yéen seen ONG bi jot ngeen a am ay statistiques ay chiffres. effectivement feebar bi mu déclaré depuis quelques semaines. il fallait que déjà ñu def ay analyse ay tests pour xam exactement lan la parce que nit ci dañ doon laam-laamee naan guurma la fekk du guurma muy euh, grippe équine parce que guurum li ñu ko waxee fas yi laal moom fas yi ak mbaam yi te fi mu toll nii sax mbaam yi ñoo gën a sonn ci chiffres yi ñuy jot actuellement mbaam yi ñoo gën a sonn donc euh, remontée yi ñuy am dans les différentes zones zone bu nekk di nga dégg ñu la fii 300 par exemple Sokone wax nañu 313 feneen 200. Foundiougne et cetera tey ci suba par contre maa ngi gis ci presse bi ñu ngi naan euh, plus de mille cas donc ça veut dire que fi mu toll nii suñu ko xoolee euh, bëri na. mais euh, comme ni ma koy waxee pour man lim bi du ci gën a am solo parce que su même su fekkee ne benn mbaam wala benn fas moom moom la ñu ñàkk am na benn famille boo xam ne moom mooy liggéey ak fas boobu moom moo ñàkk. Mhm. donc foofu moo tax vraiment mu nekk problème parce que nekkul kese mbaam yi nga xam ne wala fas yi ñoom ñoo ci ñàkk mais également borom kër yi nga xam ne ñu ngi perte seen dépense. effectivement loolu dinañ cee ñëw léegi euh, monsieur Sarr waaye ndax yëf yi ba mu dooree ba léegi am ngeen ay euh, xaj na ñoo xamante ne dañoo moom fas ak mbaam di ñëw ci yéen ngeen jàppale leen surtout ci wàll woowu noonu. waaw xam nga Sénégal médecine vétérinaire dañ ko privatiser donc tey jii ñun suñu rôle c'est plus du conseil. mais ñu ngi liggéey ak ak sensibilisation ñu ngi liggéey ak association yi ak euh, organisation paysannes yi mm-hmm. mais ñu ngi liggéey également ak euh, ordre des vétérinaires bi nga xam ne am nañu protocole ak ñoom jox leen ay yoon yoo xam ne suñ ko euh, jëlee peut-être dina tax ñu mën a faagagal jafe-jafe yooyu mm-hmm. mais tey jii Brooke du def traitement direct dañ koy jaarale ci vétérinaire yi. ndax seen liggéey bokk na ci ni nga ko waxee sànq jàppale ñi nga xamante ni xañ na seen dund eh, ci fas yeeg mbaam yooyu noonu la dépendre ñoom ci yan anam ngeen leen di jàppale parce que bu ñu ñëwee ci benn famille boo xam ne amoon nañ xaj na ñaari mbaam ak benn fas yu leen doon jàppalee ci tool yi nawet bi ñuy jub si ak tamit di transporté ay bagages ak yooyu ñoom ci yan anam ngeen leen di jàppale. alors liggéeyu Brooke commencé wul kese ci problème bi day day day yàgg nañ fi donc dañ leen def surtout li nga xam ne mooy sensibilisation di leen woon nag la ñuy toppatawee seen jur parce que am na ñoo xam ne am nañu seen jur te xamuñu lan lañ leen di war a jox ci lekk ci naan wala ci ci garab donc loolu lañ ko def euh, ci suñu liggéey am nañu fi ay euh, jamono yoo xam ne euh, lekk bi ñàkkoon fi mu amoon ay mala yoo xam ne ñu doon dee mhm. ñu defoon ay distribution aliment ci biir dëkk yi nga xam ne amoon na fa jafe mais présentement pour li nga xam ne moom mooy grippe bi dans la mesure où dafa nekk problème boo xam ne c'est national. ñun dañuy lëkkaloog autorités yi pour vraiment xool naka la ñuy mën a indi ay réponses mais également ñuy jox ñi nga xam ne ñoom ñooy borom kër yi borom jur yi ay conseils donc am nañu ay fiches techniques yoo xam ne def nañ ko jox ko vétérinaires yi jox ko agent yi nga xam ne ñu ngi ci biir euh, dëkk yi ak gox-goxaan yi. ñuy dem di euh, sensibiliser euh, propriétaires yi. kon jamono ñi da ngeen am ay agent yoo xam ne dañuy ànd ak ñoom bu ñuy dem ci dëkk yi di sensibiliser ñoo ñoo ñi moom fas yeeg mbaam yi. waaw tey ji pratiquement ci région Sénégal yu bari am nañ fa ay association paysannes yoo xam ne ñoom ñoo fa nekk. parce que bu voilà ñoom ñooy suñu relais. donc ñoom am nañu ay animateurs yoo xam ne bés bu nekk ñu ngi dugg ci biir dëkk yi guddeeg bëccëg di def ay animation ay sensibilisation ci mesure yi nga xam ne moom la fi docteur bi doon wax léegi parce que tey Euh, problème bi mu ngi fi donc pour génne ko il faut ñu xool naka la ñuy tase mala yi feebar ak mala yi feebarul loolu mooy première mesure de prophylaxie bi nga xam ne moom la ñuy wax nit ñu def ko. Mhm. waaye loolu euh, pour ñu def ko faaw kon ni nga koy waxee sànq ñuy gën a sensibiliser ñi nga xam ne ñoom ñoo ko moom xaj na ñuy xam jàngoro bi naka lay manifesté woo bu ñu gisee seen benn fas wala benn mbaam euh, di wane yenn symptômes ñu mën koo isolé tege ko ne ngir mu bañ a ñeneen ñi loolu est-ce que ñoom sax yomb na ci ñoom ñu xam ko. waaw yombul ñu xam ko il faut ñu tàggat leen ci te tàggat yooyu aussi commencé nañ ko fi mu toll nii ci dëkk yi nga xam ne ñu nga fa muy Thiès Diourbel luga ñu ngi organiser ay journée de sensibilisation pour que ñu xam information bi donc journée de sensibilisation yi fiche technique yi mais aussi dañuy wax li ñuy naan euh, porte à porte dem ci biir kër yi waxtaan ak nit ñi explique leen parce que feebar bi dafa am ay mode de contamination yu bëri mën na nekk mala bi su sëqatee mu jox ko ki nga xam ne euh, peut-être mu feebarul Euh, suñu bokkee fi ñuy lekkee wala suñu bokkee fi ñuy naanee ñu boole leen dina indi feebar mais même nit mën na nekk système euh, pour propager parce que tey jii yow su fekkee ne da nga laal sa la ak say loxo nga dem laal beneen ma la te fekk lax solo sa loxo loolu aussi mën na indi problème mais beneen bi nga xam ne moom la gën a gis actuellement mais ma lee nga xam ne dañu dee ñu bàyyi leen. ci à mm, l'air libre loolu aussi contamination la parce que normalement dañu war a gas suul leen ñu def système d'enfouissement boo xam ne tey jii du tax loolu mu wesaare. li nga xam ne moom mooy yére yi maanaam li ñu naan harnachement wala li nga xam ne moom mooy moor bi soo ko takkalee benn mala bu feebar nga jox ko beneen mala bu feebarul directement aussi dina ko am parce que virus la te virus moom lu ndaw la comme ni ko docteur bi waxee te dafa gaaw a law. Hmm, ginnaaw jàngoro boobu Emmanuel Sarr euh, bokk ci ONG Brooke ñu wax ci leneen dañ leen di faral di dégg ngeen ni euh, ñaax askan wi ci anam yi ñuy toppatoowee ni ñuy traité euh, fas yeeg mbaam yi lu ci mel ay événement yu bëri màggalu Touba gis nañ ni fas yi daf fay bëri amoon ngeen fa benn équipe tamit bu nekk ci biti di sensibilisé nit ñi mais ndax loolu am na résultat chaque année ñuy gis ni fas yeeg mbaam yi dañ leen di sëf yoo xamante ni duñ ko àttan mu di loo xamante ni daal nit ñi dañ koy xool daal seen yaram sax day daw daanaka. am na résultat am na changement waaye li des dafa bëri xam nga fii ci Sénégal ak ci dëkk yu bëri ku ñu ne nit mbaam nga rek da ngay daw parce que ci imaginaire populaire nit ñi joxuñu mbaam yooyu wala fas yooyu gëdd. alors que tey jii soo xoolee ci biir dëkk yi dañu jël exemple Dakar képp kuy tabax luy ciment luy brique. luy fer luy ndox dañ koy yóbbu ci kaw mala yi lañ koy teg soo demee zone Ferlo. di nga gis zone yoo xam ne amuñu ndox il faut ñu def vingt cinq kilomètres pour dem jëli ndox indi ko ci dëkk yi pour jox ko euh, mala yi fa nekk jox ko nit ñi fa nekk te léeg-léeg sax mala yi nga xam ne ñoom ñooy fas ak mbaam duñ ci jot soo jëlee euh, milieu rural agriculture tey jii suñu nee Sénégal agriculture suñu agriculture maanaam suñu mbéy ci fas yooyu la ñu la ñu la ñu sëkkandiku mm-hmm. mais nit ñi da ngay gis toroxal bi nga xam ne leen di xal di leen di dóor di leen di sëf jël ay xale yoo xam ne amuñu 15 euh, ans di leen di dénk mala yi loolu yëpp dañ koy gis alors que am na ay charte yoo xam ne dañ koy tere ñun suñu xeex bi yëpp mooy nit ñi ñu ubbi seen xel tey ji dañu nekk Sénégal nekk aussi dëkk boo boo xam ne nit ñi dañu gëm yàlla dañu ko basé ci alxuraan basé ko ci religion chrétienne te loolu yëpp texte yi wax nañu lu jëm ci lu ñu naan compassion maanaam yërmande nit dafa am yërmande ci moromam muy fas muy mbaam tey jii nag am na ñoo xam ne gis nañ ko comprendre nañ ko te ñu ngi am yokk seen koom su ñu jëlee zone yu mel ni Rufisque wala Dakar di nga gis charretier boo xam ne bés bu nekk di nga wàcc ak 7000 wala dix 000 wala 15 000 francs te mala boobu moo la ko indil soo ko sàgganee ba nga ñàkk ko dafa mel ni aussi sa nga bënn rek xaalis bi dem yoonam. Mhm. ndax laajul tamit euh, ngeen euh, def euh, ut beneen yoon ngir changement de comportement yi booy xool ci yeneen réew yi xale yi tout tànk yi dañ leen di teel a initier ñuy yëg ci fas di toppatoo fas jàpp ni daal luy dund la tam dafa am bakken comme nit ñi faw ñu leen di toppatoo. loolu dëgg la te commencé nañ ko commencé ñu ay programme ci biir école yi. surtout déjà dañuy yéexale pour que ñu comprendre que tey jii su fekkee ne seen papa ak seen yaay mën na leen fayal école ñu ci bëri c'est parce que fas boobu ak mbaam boobu moom moo tax comme di dugg ci biir kër gi donc dañuy commencé leen di tàggat am nañu programme ak yenn école yoo xam ne enseignants yaa ngi leen di euh, former te am nañ ci yaakaar bu baax a baax ne que loolu su duggee ci biir dëkk yi ci biir dëkk dokkaan yi euh, gox-goxaan yi aussi vraiment changement de comportement dina am incha allah. d'accord jërëjëf Emmanuel Bouré Sarr. merci beaucoup di la sant di la gërëm moom moo teewal ONG Brooke fii ci Sénégal muy mbootaay boo xamante ni kon day xeex ak yelleefu fas yi mbaam yeeg mberkelle yi anam yi ñuy dundee ñu doon waxtaanee rawatina jàngoro boobee di grippe équine daal di faat ay téeméer réew mi ginnaaw nag sàmm euh, gi ñu wax ci wàllum napp gi ak mbootaay Sénégal ñoom nag bëgg nañ gouvernement bi bu amee ku muy waxtaanal na doon ñoom ñooñu lee rawatina ci eh, seen i jàmbat yu bëree eh, seenu seenub eh, carte mareyeur bi ñuy beesal at wu jóg te waaye fukk ak juróom-ñeent complexe frigorifique yi ñu fas yéene tabax ci réew mi yëpp ci jafe-jafe yooyu yëpp ñu déglu ci Mamadou Sow moom moo yor seen kàddu ci micro Ousseynou Diop ak Habib Seck. mbaam yi moo ko waral feebar bi dal fas yeeg mbaam yi ab virus moo ko waral bakkan yu sotti bokk ci lu koy màndargaal feebar bi dal fas yéeg mbaam yi ab virus moo ko waral

koy renouveler par par un an ba pare ñu wiññeeku di ci def xaalis bu bari ba pare wax dëgg fa yàlla reconnaissance ak leneen da ci jafe tuuti loolu daal mooy suñu jafe-jafe yi ci ëpp waaw waaw waaw am projet yu mel noonu am nañu projet ay chambre froide parce que boo demee lu mel ni Kafountine tey jii nga xamante ni bërki démb dem nañ fa nga xamante ni guddi yu ñuy wax ci Sénégal mënuloo wax te tudduloo ko ci jën foofu jafe-jafe yu bari yu mel noonu am na fa mu mel ni 19 complexes yi nga xamante ni ñu ngi dégg ni président de la république mi ngi koy defar am nañu yaakaar ni dina laaj mareyeurs yi nga xamante ñoo nekk inaam si nekk en activité ngir mu teg ko seen loxo ñu accompagner ko wax ko ni ko fii nga ko war a def ak fii nga ko a def ndax ñi ko soxla ñun xam nañ ko te am nañ yaakaar ne ñoom ñi ngi jéego jàng mekk jàngale mi ak étudiants yi nekk ci école nationale de développement sanitaire et social ENDSS fii ci Ndakaaru ci ab ñaxtu bokk na ci li ñu bëgg euh, système euh, LMD muy licence euh, master ak doctorat ñu dugal ko fa amal nañu war nañu amal sax tey ab toogaanu ñaxtu kilifa ya fa nekk indi ci ay leeral ñu ne dootuñu nangooti benn étudiant di leen xupp wala di leen songu lu ñeel système LMD boobu ñu bëgg dugal nañ ko ci circuit bi ba noppi nañu toog xaar ñu déglu ci Arona yi moom mooy directeur des études bi ci micro Ababacar Camara ndax xale yi fan yi yëpp jànguñu ndax dañuy wax ñu ne dañoo war a dem ci système LMD parce que moom la ñu war a doxal ci lañ gis seen bopp ñun ñu wax ne système LMD boobu ñun ci wàllu sunu wàllu bopp ñoo ci njëkk liggéey balaa ci kenn doon wax ñun ñoo ci njëkk woon liggéey ak syndicat yi ndax syndicat yi bokkoon na ci seen plateforme revendicative ñu ne dañoo war a arrêté formation wu technicien supérieur yi te doxal nag système LMD ci école te nag un moo war a nekk modèle kon. ba ñu jébalee programme yeeg décret bi ñun ci sunu sunu wàll ñun foofu la yem parce que la koy jotale feneen kooku ñun du sunu mission ki nga xamante ni moo ñu. mi bi seetlu moom mi doon jébbal ay euh, neexal nag ñi ñuy duppee mission ak miss mathématique muy xale yu jigéen yi gën a xarañ ci wàllu le ñoom ñu ne dinañ def seen kéem kàttan ngir jox ay résultats yu baax région bi reportage Babacar Diouf Ndongo Ndiaye. ci lu yées ñetti at académie bu njaareem def jéego bu rëy ci ne muy séddalee ndongo yi ci wàllu disipline scientifique. ci Sénégal bi ñaar fu téeméer yoo jël ñaar fukk ak juróom rek ñoo dem ci série scientifique mbaa technique yi xam nga loolu dafa néewoon waaye bu ñu xoolee dynamique bi mu jël fii bi ñu jël fii depuis deux ans téeméer yu ñu jël léegi am nañu amoon nañu en 2017 euh, ñeent fukk ak ñeent fukk yu topp yu dem série scientifique daaw. ci téeméer yi ñu jël ñu am ñeent fukk ak ñeent yu dem ci série scientifique. xale yu bëri ñu ngi bëgg mathématique ak science wante fu mu nekk nii li académie bi bëgg mooy. fexe ñu des ci ba am baccalauréat waaye am na aussi lu ko war a lu mu lu ko war a gunge mooy liggéey ba xale yooyu seri yooyu nga xam ne dem nañ ci ñu des ci jàng ci ba mën ci am seen lijaa sa baccalauréat man foog naa ne loolu foofu lañ war a jàpp. ci loolu nag diwaan bi. mën naa compter ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ko nar a représenté ci concours Miss National bi Ngoné Ndaw Mbodj ak Fat kontaan naa trop maa leen di ñoom ñëpp ci cadeau yi ñu offrir di leen wax tamit ne dinañ continuer ci lancer di leen wax ne que dinañu dinañu gën a que ñu ñu ñu yokk suñu volume de travail pour euh, pour relever défi. balaa boobu sax ñoom ñii ñu ngi woy di def lépp lu nu mën pour indi ndam li fii. ci diwaanu Njaareem. Union démocratique de l'éducation nationale di UDEN moom nag mu ngi woon ca diwaanu Ziguinchor ab délégation ngir tàggat ñi jiite syndicat bi foofu rawatina jigéen ñi ci yan anam lañu ñu war a doxalee foofulee am na ay kilifa yu fa teewoon ñu déglu ci Issa fay moom moo yore wàllum formation ca UDEN. jiite ay ñoñam wala jiite ñeneen. buñ ci paree ñu wax ci communication muy communication boo xam ne. du communication nit keek nit rek waaye communication syndicat bi aussi ñu xam ñoom nan lañ ci jàppee euh, ñu mujjee nag ci wàllu sa liggéey nan nga koy fonke ñu koy tuddee moral professionnel nga xam ni la ci war balaa ngay laaj rek li nga xam ne mooy sa àq ñu des Ziguinchor ak waajtaayu feetu pak yi dimanche gile la ci benn école technique eh, bi nga xamante ni eh, ci kilifteefu église bala bokk foofee nag ndongo yi amay nañ leen ab bar ab jiir kon bokk ñu fas yéenee dem eh, ci seen i dëkk rawatina ñiy nekk ci dëkk yu sori foofee ca Casamance ngir ñu mën a dem ci seeni mbokk ngir fete waaye laata loolu kon dañoo am benn autorisation spéciale bu inspection d'académie bi foofule reportage Boubacar Dia si Lamine Mandiang semaine sainte bi ñu nekk nii moo tax ndongo yi nekk ci centre technologique et professionnel bi bii ñu mën a méngaleeg lycée technique te doon moomeelu diocèse bu Ziguinchor jël nañu fête jii di alarba. donc nous on a commencé au mois de d'octobre et nous avons demandé euh, au niveau donc de l'inspection d'académie ñun ndax weeru octobre la ñu tàmbali jàng bi moo tax ñu jàpp ni war nañu teel a jox feet bi xale yi waaye dañu ñaan ab ndigal ci inspection d'académie bu Ziguinchor ñu dem feete suñu feet di si jaamu yàlla ni mu ko waree ndaxte feetu pak moom mooy xolu suñu diine bi moo tax comme ni mu ko waxee ñu ñaan ab ndigal inspection d'académie mu may ñu ñu jël ay fan yu néew. pouvoir nous autoriser à prendre euh, ces quelques jours de vacances pour pouvoir notre euh, Christ qui est ressuscité le jour de Pâques. ndaxte ñenn ci ndongo yi dañu war ñibbi ci ruq-ruqaanu diwaan Casamance wërngal këpp. nos élèves euh, viennent de de la de. suñu ndongo yi ñoo ngi dëkk ci gox-goxaanu Casamance nga këpp. am na ñu dëkk Kafountine Bayla Bignona Sindian am nañu dëkk Oussouye am na sax ñu dëkk Jemberen ba Kabrousse moo tax su ñu jëlee fête dina may xale yi ñu dellu kenn ku ne ba sa kër ngir mën a def sa jaamu yàlla ni mu ko waree. résurrection de notre mu doon bokk occasion ngir ñu jéem a xam li ci centre bi diocèse bi moom. le diocèse de Ziguinchor que vous connaissez certainement euh, pratique parmi ses activités sociales. diocèse bu Ziguinchor mi ngeen xam dafa am ay banqaas yu bari ci wàllu njàng ak jàngale waaye ak tàggat ba tax ci octobre 2010 la diocèse bi ubbi gii le centre ñu ubbi ci ñaari banxaas muy électricité. ak lépp lu jëm ci tëgg tëggaatu weñ. les filières qui sont donc euh, l'électrotechnique donc en rapport avec l'électricité tout ce qui lien avec l'électricité et la filière de la structure métallique qui di donc métallique di le fair ici. fii nag xale yi dañuy jàng di jëfee lu ñuy jàng daaw nag la ubbi ñetteeli banxaas. maanaam dessin bâtiment ren jii nag lii mu ndongo yi mu ngi toll ci téeméer ak juróom-benn fukk ak ñeenti ndongo. avons un effectif de 164 élèves. ndongo yi jël nañu vacance book tey. ñu ne a dellu si ni ki seen i morom yu nekk ci établissement public yi. maanaam bi ñu feetee pak ba noppi. cosaan ak aada ak festigraphe bi am jamono jile ca centre culturel Douta Seck bëri na nag ay yeneen mbir yoo xamante ni dañ ko fay amal lu ci mel ni wàllum slam ñu mën koo méngale ak taalif ak fecc graffiti moom mooy dessin yu rafet yooyu ngeen di gis yenn saay ci réew mi ci mur yi ña ca bokk nag ne fas yéene nañ ko euh, gën a yaatal ci réew mi am na lu toll ci ñaar fukk ci ay nit yu bàyyeekoo Afrique ak yeneen continent yu ca teew ay Aïssatou Paye Modou Diop mën na nekk itam peinture boo xamante ne dañu koy def ci ab mur ci ab monument wala sax si benn objet graffiti nag bu mu dalee exister yàgg na lool. ñu ñu njëkk ña euh, li leen mën a raconter seen histoire mooy bi ñu demee ci grotte yi ay grotte yu mel ni ay ñoom Lascaux ak yeneen yi euh, façon bind façon dund bi ñu doon dund bi ñu dund dañ ko doon dessiner ci bi ay këriñ lañ doon jël mooy matt yi bu ñu ñoree noonu ba nekk këriñ ñu rëdd ko. bant boobu di ci des mooy crayon bi ñu utiliser tey loolu ñooñu loolu ñu doon ne dundee naan dañ naan witt di napp esam la ak di rëbb pour mën a dund loolu di dox ba dugg biir Égypte ñuy wax tey naan nit ñi dañu civiliser nit ñi dañoo am architecture bu garaaw loolu yëpp Égypte gii Afrique gii la jógee soo ko dem ci yeneen dëkk yi nag nit ñi ñu ko bàkkoo. yenn saa yi nag boo gisee ñuy def graffiti si yenn mur yi am na loo xamante ne moom lañ si jublu. mooy ñun bu ñuy def graaf du ñu bind suñuy tur di wax ñun ñu ngi existe suñ dañuy jël benn thème teg ko thème bi mën na wax ci sante mën na wax ci éducation mën na wax ci social mën na wax ci sax nit ki nu muy doxalee ci biir dëkkam bu nekk ci dëkk bi. li nga war a indi ci sa dëkk mais booy dox ci mbedd nga doxalee doxalee bu bu ñoŋ bu rafet bu jekk ba nga xam ne ñi nga xam ne kii model la lii ki bëgg dëkkam la ñii la war doxalee loolu yëpp graffiti bi da ciy wax. parce que bu fekkee ne man dama nekk ci dëkk bi di def graffiti te mënul jariñ sama waa dëkk amul solo. ci biir festival bi li nag exposant yi kontaan ndax nag seen liggéey dina gën a fës. Euh, exposition bi déjà dina yokk visibilité par rapport ak ñun li nga xam ne moom lañu andi bëgg ko wan. àdduna bi euh, dinañu may visibilité mais ñu ngi ñëw di visiter di xool kon buñ ñëwee gis marque God is one dinañ xam ne donc bon y a quelque chose qui moom nga xam ne ne mi ngi en place donc loolu noonu bon je pense que ne moom mooy plus bu ñuy def quoi. le fait que ñu exposé ci ci ci photographe bi moom ça va nous permettre euh, vraiment ñu am benn visibilité bi. bon gën a am aussi ay ay ay gën a am ay relation lu jëm si fukki fan ak jàpp si ñaax fukki fan ak benn ci weerum avril ay panel ay exposition dinañu am ngir rek tontu si yenn laaj yi nga xamante ne ñu ngi koy laaj ci wàllum graffiti xibaar bi ba léegi ci wàllum cosaan ak aada mi ngi la festival bu Cannes jàppale ni sénégalaise boobu di Mati Diop moom nag dañoo tànn film bi di Atlantique mu bokk ci jongante bi ngir fas yéene euh, jël raaya boobee ñuy duppee euh, Palme door euh, du ñàkk kon ci kanam tuuti dinañ ci daal di am leneen yeneen xibaar yu gën a yaatu ñu dem ba biti réew ca Mali rawatina foofee nag député yi nekk ca assemblée nationale ba bokk ca majorité ba ak kujje gi sax ca boppam Union daal di déposé ab motion de censure jagleel ko premier ministre ba di sumay Soumeylou Boubèye Maïga mooy kon liñ ca bëgg rek mooy ñu tas gouvernement ba lañ koy tuumal mooy ñu ne moom dafa mel ni daal dafa tële ci saafara jafe-jafe yi ca réew mi rawatina ca digg baak nit ñañ fay faat déggoon ngeen ko fan yële rawatina ay téeméeri nit yu bokk ci benn ba xeet bu ñu boole faat ci ñaari village tàggat yaram ak kan ñi nga xamante ni seen at motagul fukk ak juróom-ñaar di am ca Tanzanie Sénégal bokk na ci jongante bi ñoom tey jile gaynde yu ndaw yi la ñuy amal seen upp ñaareelu match bu 14h jot 14h jotee seen digg ak Guinée lay doon ñoom di joueuru Malick Daaf yooyu le seen match bu njëkk daanaka nul la ñu amoon seen digg ak Maroc benn bal fu nekk compétition bi di am niñ leen ko waxee sànq ca diwaanu Tanzanie. léegi léegi dañuy dalal Mamadou Mouhamed Ndiaye ci li yéenekaay yi xëyee tey jile jërë ngeen jëf ku ñu yónni yàkkamti ko kookee yàgg fenn waru ko Macky Sall loolee la gëm l'observateur nañu moo tax it président de la république mi ngi ci urgence yëral xët mu njëkku yéenekaay bi lu jëm ci réforme yi mu namu ci réew mi projet de loi bi waxtaana ci démb moo ki ministre ca ndajam conseil des ministres ba juboo ci adopté ko yéenekaay bi nañu léegi nag député yi ci assemblée nationale ñoo des léegi ci projet de loi bi te fan yi di ñëw danañ bu ñu sukkandikoo ci kàddu yu nangoo ci ay miru ñing mi bokk yaakaar nee na projet de loi bi bu yegg si assemblée nationale du fa yàgge jaar jàll lay doon ndax ñoom lépp lu ñu mën a def ngir gunge président de la république du ñu ko yàggal fenn maître Djibril Rouane ne woon ni jamono président commission des lois ci assemblée nationale ne ñu ci l'observateur projet de loi bi buy dem ci assemblée nationale ministre de la justice garde des sceaux moo ko fa yóbbu mooy dem waxtaan ci député yi maître ne waaye ak lu a a li mu ne dafa bëgg réew mi di dox ci mode fast track yàggale ko fenn dindi nañu poste premier ministre nee na dafa taxaw temm ci yaxanal dépense yi nguur gi bëgg nañu defar ay passeport diplomatique yu yees def it ab conseil interministériel ci commercialisation agricole gi laata weer wi di dee les économies ci jamonoy takk ndigg yi ba mu dëgër seere seen yi ci le président Macky Sall toll ñu wàññi dépense état bi am na ay mesures yu bëri yu président Macky Sall jël démb ci wàll wi ñu ngi ko jëlee ci ndajam conseil des ministres dogal yooyee mu jël journal les grands travaux de Macky Sall la ko tuddee ak yeneen yu ne mel moom la président Macky Sall bëgg la Sénégal nañu yamalewu ko foofee jël na ay bi jël ay misir ci wàllu oto yu état bi mbirum ndox mi mbirum courant bi mbirum ndox mi yi lu ci nekk président wax na ci ay mesures yu mu ci jël journal bi nañu Macky gën naa seere wis bi suur su a nañu Macky Sall dafa feral gaayam yi ci lu mu waajul biberon bañ doon nampé moom la président bënn bi mu nee train de vie état bi da koy wàññi projet de révision bu constitution bi ministre adopté démb ca ndajam conseil des ministres soleil national xëy na di ñu wax la ca nekk dëgg-dëgg ak lu ci nekk ak ni muy demee ñu dem ci direct info fekk fa coowal suuf ci xëtamu njëkk ca géréw ak ca yeen la ñu yéene kaay bi nañoo jàmm amatu fa gaaña ñoo ngay saax-saaxi suuf sa di daggi jaay baa ñu daggi dëkk askanoo fa yeew dem ba mënatuñ ko muñ tax ñu jóg yëkkati seen kàddu di sàkku ci autorité yi ñu jël ci matuwaay balaa mbiri di ëppi loxo suur suwaa nañu leneen coowal suufa ngi loo xam ne bu ci jëlul ay matuwaay dina ëppi loxo mu di suuf sa ca boori Camp Leclerc nañu koy saax-saaxee jaaduwul te loolee neexul benn yoon waa gendarmerie moxtal combat di giita ngas gu mitti te tar anki dina kay moom la gis ci contrat d'affermage bi jëm ci wàllu ndox mi jëwrin ju bees di ñu dénk wàllu ndox mi di Serigne Mbaye Thiam yéene kaay bi nag ñu faaw dafay jéem a ci recours bi waa SDE di wax am na it ab expert bu leen wax ñoom waa anki dina kay ne situation bi li mu nar a jur mooy ñu nekk fii di taaweeka ëccëka law lawal ci wàllu yoon muy yàgg bu boobaa askan wi rek ñoo ciy sonn ndax du ñu am li ñu bëgg ñi bëgg football nañu ma fekk ci stade yéene kaay quart de finale retour Ligue des champions journal bi nee nañu Liverpool fa na ca Porto ba génne ko ca Tottenham moom it génne ca Manchester City record yéen nañu nii la demi-finale yi a tëddee Tottenham moo cee daje ak Ajax FC Barcelone bu Lionel Messi di ca daje ak Liverpool bu Sadio Mané Sadio Mané justement mi ngi ci xët mu njëkk l'Observateur moom footballkatu Sénégal bi football ca Liverpool ga ca Angleterre di Sadio Mané ma nga fay wax ne dajeeg Barcelone lu mu yàgg lu mu yàgg bëgg la Soleil na ku naan ko am nga ko ni yéen ne Sadio Mané ak Lionel Messi ñooy daje ci demi-finale Ligue des Champions. jërëjëf Mamadou Mohamed Ndiaye yeneen xibaar bu 19h30 jotee lay doon incha allah ak rédaction bu télévision Futur Média mbokk yi sant leen gërëm leen di leen ñaanal ngeen yendoog jàmm.